asalaamaaleykum mbokki xaritu internet yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci bile émission tey nag ñu ngi ciy ànd ak euh, professeur Amsatou Sow Sidibé mu nekk benn jigéen joo xam ne ju mën góor di femme battante et puis yàgg xeex ci li nga xamante ne mooy ak ak yelleef tey nag ñu ngi am contacté ak mbégte fas yéene waxtaan ak moom euh, professeur ñu ngi lay nuyu. di la siyaare di sant la ci gërëm la ci sa disponibilité parce que xam nañ ni yombul ak période élection yi ñu toll ñu ngi lay remercier di la nuyu di la wax nga nuyu suñu internautes yi. bu baax euh, di leen nuyu mosieur Ba di nuyu internautes yëpp di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay di wax sama mbégte ak merci Senclic parce que invitation bi am na solo. macha allah invitation bi am na solo professeur tey su may résumé tuuti rek def benn briefing bu ndaw ci say jaar-jaar tuuti rek euh, professeur Amsatou Sow Sidibé di jàngale université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ba pare nekk faculté de droit euh, et puis di jiite mouvement boo xamante ni nii citoyen la ñu naan ko CAR leneen ba pare nekk aussi tamit. Euh, jigéen joo xam ne yàgg xeex ci ak ak yelleef Sénégal ak bitim réew partout dans le monde ba pare nekk premier femme sénégalaise boo xam ne agrégée en sciences juridiques nekkaat aussi jigéen joo xam ne ju njëkk samp ndëndam ci wàllu euh, laaj réew fii ci biir réewam en 2012 ah loolu nag suñ koy wax dañ naan am na mérite parcours bi rafet na car macha allah teyit it yamul foofu bind ci ay téere yoo xamante ne ni yu bari yoo xamante ne ni tey suñ ko doon wax fii ba suba duñ fi bàyyi duñ fi jógee professeur. maa ngi lay wax ne parcours bi am na solo. waaw dañuy sant suñu boroom parce que nit fu mu yegg suñu bëgg-bëgg borom la. ñun mënuñu dara amuñu dara lu ñu am rek suñu borom la may koy sant bu baax a baax a baax waaye mu teg ma ci ay loxo yu waajur sama papa Alaaji Kap Sow sama yaay ajaratu ndeewu lay jaw yoo xam ni dañu mënoon a topp seen doom di ñu wax toujours jàng góorgóorlu leen fexe leen ba am seen yëfu bopp ñu topp ko nag def ko ba yegsi ba fii suñu borom tamit euh, boole ma ak professeur El sidibe muy borom kër gi moom i tamit puus ma naan ma vas-y vas-y kon bokk euh, lii ma suñu borom sarax daf ko teg ci ay loxo yoo xam ne ñoo tax mu gën a yomb waaye man tamit ku amoon jom laa boo ma daan wax waaw góor rek bi ma nekkee xale bu may jàng samay waajur buñ ma nee waa góor ci lay gën a dàbbali gën a nag euh, sawar pour euh, am ay résultats yu baax am yéene nag xam ni dama am ay warugar am naa ay àq ak ay yelleef mais dama am ay warugar warugar yooyu nag dama xar sama tànk tubéy pour mën a ko mën a ko orga mën a koo réussir mën ci am ndam warugar wi surtout pour askan wi ci lay bay nag bu baax a baax a baax. dégg ngeen ko surtout pour askan bi ci lay bay waar moom professeur Amsatou Sow Sidibé mu ngi juddu le 14 octobre 1953 fii ci Ndakaaru euh, professeur dégg nañ la nga wax léegi ci ci sa tuuti parcours nga résumé koo xam naa da nga ko résumé tënk rek ci tënk. mais di mu bëgg a xam cosaan bi fan la parce que saw moom ci ndakaaru yaakaar naa juddu rek la moo leen boole de. Euh, waaw man sama cosaan xaw na sore saw bi dégg naa sama maamaat mu nga jóge woon Masina pëlu Masina ci sama côté waajur bu góor euh, jibi saw mais dafa dem Ndar def école des fils de chef ñëw Dakar euh, samp Médina gi moom ci ñi sanc Medina ak famille Diène bi moo tax sama papa tudd Ousmane ñu tuddee ko Ousmane Diène Ousmane Kaap Sow ñu tuddee ko Ousmane Diène yaayam faatu Anne la tuddoon waa Pété la ci Fuuta Fatou Anne waa Pété euh, sama papa mu ngi juddoo nag Ndakaaru ndax papam ci ñi sancoon Medina la ba euh, Lamine avenue lamin Gueye ci la bokkoon Euh, sama papa sax mu ngi juddoo foofu rekk Société général ndax seen kër foofu la nekkoon mu nekk donc waa Ndakaaru boo xam ne mu nga jógee Maasina jaar fu nekk sama yaay ajaratu ndeewu lay jaw moom euh, papam waalo waalo la waa gidda xaar la ak xare ak nombook ñoom seen yaayam nag fat ñang ibba ci mbokk ñangeenu ji euh, maam Abdou Aziz Dabaax la Euh, nekk aussi waa Njàmbur jóge euh, Njaañ Njaañ la jóge ca Njàmbur di sëtu Njaga Maram Ñang am na nag maam yoo xam ne Funjuun la ñu jóge seen la santoon ak luum kon boog Sénégal foo laal rek fa laa cosaanoo. yow daal yow daal professeur suñu la déggee yow yaay Sénégal. Sénégal nag laa juddoo <laughs> ah, waa Dakar laa fii laa juddoo sama papa fii la juddoo. sama yaay Thiès la juddoo bon bref mu ngoog. ok professeur э, dégg ngeen li mu ko waxee léegi bu ñuy seetlu aussi tamit ci sa njàmbaarte ci wàllu xeex ak ak yelleef dafa jéggi dayoo yaa ngi ci jiite woon nga fi euh, euh, affaire droit de l'homme je pense. Ah, ci régime bi fi nekkoon jamonoy Ablaye Wade ba pare aussi tamit nekkoon fi jiite benn benn benn kuréel bi ñu naan espace dialogue vérité et réconciliation loolu yëpp nga nekk ci di dox di xeex ak ak yelleef rawatina la paix en Casamance est-ce que loolu yomb na ci jigéen. waa c'est vrai que gis nga man dama yàgg nag nekk ci société civile bi di jàppale askan wi surtout di jàppale jigéen ñi di jàppale xale yi ñi nga xam ni amuñu doole di leen jàppale nekk présidente rafet réseau africain des femmes travailleuses jigéen yu bare tey bu ñu jotee seen diggu ginnaaw. ginnaaw yàlla ci sama loxo la jaar ak ñi may liggéeyal au niveau de Rafet institut des droits de l'homme et de la paix dirigé naa ko daanaka lu mat ñaar fukki at fukki at bi dama doon def ay formation fukki at bi ma nekk directrice générale nekk donc ci àq ak yelleefu doomu aadama nekk ci mbirum jàmm la paix di jàngale naka la ñuy demee ba nga xam ni jàmm dina am ay du am te bu ay amee nag lañuy def ba wis ndox ci ci taal bi yooyu yëpp euh, c'est vrai def naa ko euh, moo tax gis nga mbirum éducation wis naa fa ndox lu bare yoon mu yàqu ma taxaw ak ñi may àndal ñoom Seydou Nourou Ba ak ñeneen a ñeneen ak ñeneen ba fay ay wi ba xale yi delluwaat école Casamance dem naa fa créé fa la ñuy wax EDVR espace dialogue vérité réconciliation pour la paix définitive en Casamance bi ma nekkee euh, présidence de la République man dama ni loolu lay toppatoo daan nag jël sama alalu bopp di ci dugal loolu dama ko bëgg a wax parce que xëy na na mu waroon demee demeewu ko mais daal bay nañ ci suñu waar ba yàlla def ci jàmm ñuy ñaan nag jàmm ji sax metti woon na ndax di dugg Casamance ci foo xam ni xëy na euh, violence daan na fa am nga ñeme fa dugg ba yàlla indi lii sant bu bare bare bare la ñuy naan nag mu wéy ñaan euh, ñu continuer dëgëral ba ba jàmm jooju jàmm jooju sax kon boog man dama nekk universitaire bay fa sama waar euh, nekk femme de la société civile nekk femme de développement parce que rafet mooy jigéenu liggéeykat yi ñu jàppale liggéey jigéen yi ci kaw ay formation daan leen jox xaalis ba ñu bare tey seen loxo jot na seen diggu ginnaaw donc euh, aussi nekk euh, ci euh, affaire u àq ak doomu aadama nekk ci mbirum jàmm la sas nag parti politique bu tudd mouvement citoyen car leneen convergence des acteurs pour la défence des valeurs républicain ñu nit la ñu teg rek jël rek teg ko suñu kala nit ne nit suñu borom moo ko fi wàccee ñu jox ko ay àq ak ay yelleef ñu war ko gérer loolu mooy suñu parti Kaar Leneen. ok loolu mooy parti Kaar Leneen mais professeur bi ngay wàcc dugg Casamance ngir jàmm dellu fa euh, est-ce que la nga ci séntu woon ak actuellement fi ñu toll changement am na aussi tamit est-ce jotu ci woon tamit am ay xoqatal yu mel noonu ndax Casamance yombul gérer ci wàllu jàmm. xoxatal daal amoon na parce que nguur gi euh, man maa tànn ne foofu lay dem liggéey mais na ma waroon jàppale jàppalewuma ko waaye nag boo amee gëm-gëm teg lépp ci loxo suñu borom yàlla daf ciy jàpp Casamance noonu la demee man dañ ma def ministre conseiller ma dugal ca biir droit de l'homme ak paix bañ ba ma waxee droit de l'homme ak paix ma ni li may tànn mooy fépp fu ñuy salfaañee ak ak yelleef doomu aadama dinaa taxaw te def naa ko lu bare yoon te fépp foo xam ne jàmm amu fa na ma ko daan defee ci ay réew comme Côte d'Ivoire dinaa ko defee ci sama réew loolu tax ma ni même bu fekkee ni samay moyens yu bopp laay jël ànd ak groupe bi ñu dem liggéey dinaa ko def donc dem nañu jàpp ni jàpp ci yaakaar naa ni la daan am Casamance mënatu fa am mënatu ñoo wax ni na mu daan tàngee dina continuer tàng mënatul tàngee noonu mais dañu war a nag ubbi suñu bët ku ci nekk la ngay def war a def nga def ko pour jàmm ji sax en Casamance. pour jamono ji sax en Casamance foofu laay dugusee euh, di di di di fàttali ñi ñuy seetaan yaa ngi ñu la commencé ràññee ci géew politique bi dëgg dëgg dëgg 2010 2011 si je me trompe pas 2012 nga ñëw euh, poser sa candidature lan moo la dugaloon ci politique bi. li ma dugal ci politique bi mooy sama bëgg-bëgg ci sama réew man dama sopp Sénégal bëgg Sénégal sopp sénégalais bëgg sénégalais ak sénégalaises yi. donc dama dugal sama loxo sama réew parce que dama ni c'est vrai ñu ngi jàngale ñu ngi ci terrain bi mais bu ñu nekkee fa ñuy dogalee réew mi dina gën a neex moo tax ma samp euh, parti boobu tudd kaar leneen ndax ñun bëgguñu politique politicienne moo tax ñu ne mouvement citoyen mouvement citoyen politique gu par parlo bëgguñu ko politique buy tax Sénégal jëm ca kanam loolu la ñu bëgg donc euh, hmm, looloo tax ma dugg ci bon dama dañu ko samp rek ma dem ci élection yi parce que jigéen amu ci woon ma ni waaw mais jigéen mësul présenté wu lu tax te jigéen ñi am nañu xam-xam am nañu mën-mën expérience am nañu jikko yi yi ñuy laaj jikko yu baax jikko yu rafet euh, am nañu yërmande te mën nañu organiser kon boog pourquoi mu nekk góor ñi rek te jigéen ñi nga xam ñoo ëpp ci Sénégal donc am ñu ci mën a mën a téye réew lu tax du ñu dugg moo taxoon nag ma nekk candidate à l' élection présidentielle en 2012. moo tax nga nekkoon candidate à l' élection présidentielle bu 2012 mais est ce que tamit yéeg sa bopp maanaam nga gis ni a ah, professeur de euh, bi muy def def def na huit ans wala trente huit ans wala vingt huit ans à l' université Cheikh di jàngale def formé ñu bëri ci wàllu droit foofu ca université Cheikh Anta Diop moom daal gis na ni carrément su sampee ndëndam da ko war a samp dana war a mën a am dara lool la wala. ma man jàngaleen léegi ren ji ren di ci lay nekk 39 ans fanweeri at ak juróom-ñeent may jàngale université mais damay samp nënd parce que góor baax na jigéen baax na. góor baax na jigéen baax na ñu gis te aussi tamit euh, bi nga demee deuxième 2012 bi nga demee deuxième tour ci élection yi euh, da nga ànd rejoindre Macky sàll lan moo taxoon nga rejoindre ko te it gis nañu que ni bi Macky yeggee ànd nga ak moom def na la ministre de conseil quelque temps ñu gis la nga génnaat féete ci opposition bi est-ce que mën nga ñu ci leeral tuuti. waaw ba boobu yoon euh, Macky Sall bëggoon na ma ànd ak moom premier tour ma ne ko dama bëgg ñu ubbi euh, arène bi ay ubbil ko jigéen ñi may leen ñu ñu dugg toujours góor ñi rek góor ñi rek góor rek may leen ñu ñu ñu dugg mais dama ni bu ñu duggee bu ñu gañee ñun ñeneen ñi topp suñu ginnaaw su fekkee ni keneen moo gañee ñu ànd ak moom moom nag bi mu gañee moom ñëwoon na ma seet si waxtaanoon nañu ma ne ko boo ma rawee man ma ñëw jàppaleel noonu laa ko defee noonu laa ko defee après ma nekk ministre conseiller présidence de la république bi may dugg ma ne ko dëgg rek nag laa lay wax ñëw ma fi pour par parparloo ñëw ma fi pour raay dama ñëw pour ngir yàlla ak askan wi ba ma gisee ni nag euh, demeewul noonu dama ko ko wax waaye nag xam nga wax yenn saa yi nag euh, am na ñoo xam ni daf leen di xaw a sonal wax jooju nag di ko wax dëgg di ko wax dëgg looloo ma génne présidence de la république te man li ma gënaloon mooy may wax dëgg ndax askan wi yóbbuwuma fa woon kon ma toogoon université moom ma gënal moo loolu moo xew wax naa ko dëgg nanguwul ma wax ko dëgg moom ci boppam moo ma ni comme mënoo ma wax dëgg mais génne ma génneel demal ma dem sama yoon dellu université. wax dëgg boo la génnee présidence mais est dëgg boobu mën nañ ci am tuuti leeral. ci ci dëgg bi nga xamante ni yaa ngi ko doon wax présidence bi nga ànd ak Macky Sall gannaaw bi nga ko gungee ci deuxième tour yi. bare nañu nag bare nañu bare na bon duma dem di wax la ma daan bind ci dossier yi loolu kenn du ko def homme wala femme d'état du ko def waaye am na ci yoo xam ni bi nga xam ni yëf yi dafa dafa ëppoon te mënoon a indi. lu metti ci réew mi dama ko wax ci presse bi bon décision yi nga xam ni dañuy xam ni loolu moo war ñu bëgg cee gëmm bëgg cee teg tànk dama mujjoon di ko euh, dégg ngeen ko dégg ngeen ko bare na nañu bare nañu